bi gën a organisé parce que dañoo jàpp ne kenn mënul leen dara. d' accord alors euh, El Malick ministre des transport ñu bari dañu wax ñu dugg ci infrastructure waxtaane li ngeen nar parce que là li ñu bëgg dégg mooy. li waa eh, li Moussa balaa balaa moo dem dama am question boo xam pour mu yóbbaale ko quoi mooy mooy plateforme numérique yi nga xamante ne moom ñoom la ñuy kiyee ci secteur du transport. dama ci gis ci euh, décret bi bi ngeen di def état généraux ñu ne il faut benn quittance su 15 millions. pour mën koo pour mën a am euh, plateforme yooyu. ticket d'entrée quoi. waaw waaw waaw. de toute façon décret bi c'est c'est un boo xam ni. Hmm? yomb na trop. non mais ay ñoom. non attention yango c'est un décret non c'est un décret boo xam ne ni dañu nekk ni sax di ko càmbaraat parce que. Euh, c'était du temps du président Macky Sall ah. mais mi ngi ko signé bi mu waaj dem comme d'habitude ci décret yi mu signé <laughs> mais jotuñu ko appliquer. Euh, donc lu ñuy xoolaat la parce que. à la fois taxi classique yi nee nañ décret bi baaxul. mais VTC yi aussi nee nañ décret bi arrangé wu leen. arrangé parce que ci décret bi aussi faut le dire am na une certaine benn benn dose protectionnisme. cest à di protéger aussi. Mhm. Euh, euh, suñu ay entrepreneurs suñu ay transporteurs locaux. d'accord. parce que. Yango, par exemple, si je cite l'exemple, fait partie du, du groupe mhm. Yandex russe. Mmh. Ils ont la capacité d'amener ici peut-être euh, 50 000 véhicules. Donc, si leen joxul benn nombre maximal, mais mën nañu inonder tout le marché et donc ñun suñu trans moo tax tamit yooyu yëpp dañ ci jouer pour protéger aussi suñu transporteurs yi mhm. waaye accompagner leen ñoom it ñu mën a yéegal euh, euh, euh, niveau bi sànq dama ci profité wax ne rek euh, que ni par exemple li ñu doon wax ci visite technique yi daf ci am loo xam ne aussi responsabilité état la parce que aussi état day assumer responsabilité mooy amuñu les moyens de contrôle nécessaires parce que tamit oto yu bëri bis yi ngeen di gis raar nga ciy gis bis bu ñu immatriculé Dakar fan la ñuy defee seen visite technique dans les régions foofa la moo fa am pour des visites techniques bët Issa mooy ñëw wër oto bi xool nangam te du mécanicien kat. oui waaw. dans se passe comme ça. mais oui mais mën naa man mën naa wax ne ñooñu boo ci interroger woon dix nan la ñuy xamee est-ce que pneu day expiré déjà fii ñu bëri mën nañ bañ a xam ne pneu day expiré. absolument mais naka la ñuy defee lecture bi pour xam âge pneu bi. Mhm. Mhm. chiffre xam nga mosoo ko dégg. bët mënu koo gis. Euh, à quel à quel moment la ñu wax ne pneu bi usé na parce que def nañ ci signe boo xam ne moo koy moo koy wane mais toutes ces technique la léeg-léeg parfois bët mënu ko gis wala nit ki sax peut-être ki contrôler sax. xam ko mais c'est aléatoire parce que kooku tey demee boo ko jàppee na ko yaa contrôler oto bi y a deux semaines oto bi def accident. mu ne la pourtant man xool naa lii laa gis c'est différent ak machine bi nga xam ne day ñëw moom mu calculer génneel la des résultats scientifiques nga mën a xam ne oto bi am na problème mais kooku nan lay mën a xamee oto bi ci suuf cardan bi nangam wala freinage bi nangam wala puissance bi wala frein liquide bi kii bi voilà surtout freinage yi nga xam ne système freinage yi nga xam ne air la et cetera mhm. moo tax ñu ñuy indi 17 centres contrôle technique à partir de ce moment mhm. tolérance zéro maanaam képp koo xamante ne nii amatul déjà lay ne fii dafa xat visite technique yi nangam mais aussi euh, oto boo xam ne nii defal nañ ko visite technique quelque temps après mu génn ñi contrôler ko gis ne auto bi remplir di centre contrôle technique bi ko bi nga xam ne jox nañ ko cahier de charge mu remplir ko moom mu valider ko il il va s'expliquer parce bu état defee li mu war a def ci lay gën a yomb pour mu appliquer sanction yi mu war a absolument te état nekk fi pour sanctionner dañu bëgg dissuader maanaam ñu dem ba askan wi xam ne jaar ci yoon moo gën a yomb ñàkk a jaar ci yoon parce que ñun tamit nag ñun ñëpp yem dañoo xaw a mën a xool bu ñuy liggéey ci système ñu ngi xool nan la ñuy bypasser système bi nan la ñuy contourner système bi loolu rek la ñu aay buñ tegee ñun loolu rek la ñu aay nan lañ koy contourner hmm. boo duggoon ci boutique bi sax léeg-léeg ñu xool balance bi nan lañ ki c'est-à-dire que loolu dafa mel ni dafa nekk ci suñu ci suñuy gène quoi na yàlla baat moo tax encore une fois panoplie wu ay solution yooyu jël la ku taxaw ne dañ koy régler rapidement nii système transport bi mhm. ay na yëwan mënul ne t'avais pas raison de demander la démission de Mansour Faye finalement voilà ah laa nag ci ci tous le politicien ou l'homme politique mais c'est normal dañu doon politique de la même manière am ñuy demander sama démission hein. oui bien sûr su autorité yi la nga laajoon ci Mansour Faye waaw su autorité yi gisee ne damaa war a démissionner wala dañ maa war a wàcce parce que je ne suis pas en train de faire mon travail d' plus que man ñun dañ fi fekk système de système transport boo xam ne ay décennies la on n'a pas encore fait six mois mën naa ne lii nekk di am résultat wu ñoom seen gouvernance la ñun dañu nekk di stopper l'hémorragie mais bu ñu déroulé ñun voté guñu suñu budget déroulé guñu suñu plan defaguñu dara dañu nekk actuellement di gérer les affaires courantes di stopper hémorragie mais bu ñu déployer suñu politique euh, euh, référentiel bi génn mm-hmm. ñun sectoriel yi ku ci nekk génn ne pàcc bi nii laa teg nii lañ koy dérouler lii mooy app yi à partir de ce moment ñu mesurer l'efficacité de nos de nos actions mais j'assume ce que j'avais dit d'accord alors El El Malick et, et je comprends aussi c'est ce qui réclame ma démission. mais Moussa Ba c'est de la c'est de la politique. Euh, euh, s'il te plaît sur les sur sur les compteurs de taxi dama balaa muy génn. waaw sur les sur xam nga mooy li ma la expliquer c'est-à-dire que il faut ñu accompagner taximan yi ñu dem vers un renouvellement déjà il y a un système d'homologation des véhicules désormais oto yi dugg Sénégal pour transport su ñu ko jàllalee ba teg ni ñu teg. ak euh, ministre du commerce et tout dañuy homologué oto yi dugg di homologué moto yi dugg. parce que système li lii problème diagnostic yëpp xam nañ ko liñ ci jotul woon a xam sax ñi nekk ci secteur bi gën ñu koo xam wax nañ ñu ko parce que am na ñoo xam ne ñi ngi ci secteur transport mhm. dañu bëgg transport bi changé ñu gis ci seen bopp chauffeur yi gis ci seen bopp ñëpp gis ci seen bopp parce que sëñ Moussa mhm. accident bu amee raar ngay dégg ñu ne chauffeur bi rëcc na sauvé na. mooy day faatu boo laajtee rek ñu ne la faatu na waaye borom oto bi moom la mu investiroon ci ay millions du ñàkk donc kam moo gën a am intérêt. Mm-hmm. ñu fexe ba. Euh, écosystème bu transport tax ñëpp ci am intérêt ñëpp ci am intérêt eh, eh, euh, El Malick bala may euh, sori sax l'âge des véhicules am na débat bu rëy bu muy jur surtout pour les sénégalais de la diaspora bi véhicule dugg ci réew mi da ngeen koy bàyyi fa ko Macky Sall bàyyi woon wala. xam nga man lan laay bañ ah, xam nga xam nga Moustapha ñun lenn lañ dul nangu. mooy di jël ay décision benn ci pression wala ñaar ci émotion ba dañu bëgg bu ñuy jël décision mu nekk une étude scientifique boo xam ne wane na na xëy na pour ñu renouveler parc bi dañu war a autoriser ba dix ans wala dañu war a autoriser ba quinze ans wala dañu war a wàññi ba cinq ans loolu analyse scientifique moo koy déterminer ngeen koy te te voilà te pare guñu ko. mais yéen a ngi ciy liggéey. non déggoo li ma la wax. bu te bu ñu génnee ci états généraux yi ba def les résolution à partir de ce moment la nit ñi di comprendre la moo tax ñu ne tous ces points là te état généro yi wu ñu benn virgule. d' accord léegi euh, états généraux yi duñ ko mën a revisiter waat yëpp parce que euh, li ñu war a waxtaane dafa dafa bari te waxtu bi mi ngi ñuy dàq bu baax a baax mais mbirum transport bi mu intéressé Sénégalais yi mënuñ ci génnee noonu. Euh, tukki nga ànd ak président de la république récemment dem fu mel ne Chine. Mhm. gis nañ li ñu def ci ci transport. Mhm. soo demee ci réew tubaab yi gis nañ ko y' a beaucoup de sénégalais yoo xam ne ñuy seetaan moment bi dañuy dawal en Europe ci ay camions wala dem même jusqu'aux États-Unis ñooñu booy wax ak ñoom très souvent dañ naan la ministre bi su nanguwul def une révolution totale ci transport du ñu dem fenn. ils ont raison d' abord infrastructure yi oto yi nga xam ne ñoom ñooy daw ñiy daw oto oto yi ak ñi koy dawal infrastructure El Malick est-ce que la politique bu Pastef bëgg mooy continuer comme ni ko Macky Sall ak Abdoulaye Wade doon defaree di def ay tali rek di dem wala da di proposer leneen pour ñu am un meilleur transport dans ce pays. non da nga maa nar ma de ma ma ma dévoiler sama. sama plan bi rek quoi. <laughs> mais gis nga effectivement euh, euh, day baax di dem di def benchmark. mais man du ma jël kaaw du ma jël kaawu Chine. du ma jël kaaw benn pays européen kaw Maroc laa jël parce que avant may dem Chine Maroc laa jël euh, Maroc dañu développer seen système de transport mais mu nekk un système de transport multimodal ba pare interconnecté d'abord les autoroutes daanaka Maroc les parce que ñoom dañoo am nag une bonne politique de décentralisation. mooy euh, dañu am ay province mën naa lépp newul Casablanca. déet moom dangay ngay dem Rabat ne Rabat dàq Casablanca. Hmm. dem Marrakech na Marrakech moo dàq Rabat. dem euh, comment dirais-je euh, Kénitra donte dëkk bu ndaw la sax dem Tanger ne voilà. dama la jox benn exemple. en 14 heures de temps non moins de 14 heures parce que maa ngi koy yegg ay 7 heures 8 heures. balaa vingt deux heures est-ce que xam nga ñaata ville laa def yu sore maa ngi wàcc Casablanca mhm. j'ai fait Tanger ak le train ak le train juge Tanger parce que ñoom seen TGV bi mu ngi def cent soixante te am na sax benn distance boo xam ne def nañ ko électrique ça fait jusqu'à trois cent vingt à l'heure ma juge fa ñëw wàcc Kenitra jugewaat Kenitra dem Rabat jóge Rabat dem Fès jóge Fès ñëwaat fanaan Rabat toutes ces villes la je les ai fait en moins de quatorze heures de temps pourquoi c'est possible parce que je n'ai emprunté que les trains et les euh, deux fois deux voies mmh, deux fois deux voies donc le véritable challenge c'est les infrastructures te ñun boo xoolee on a huit pôles huit grands pôles mhm. foofu mooy permettre ma ñëw ci plan yoon yokk yooni naataange les routes du développement euh, ci plan boobu daf ci am programme boo xam ne c'est pour un programme pour la mise à niveau des nationales PM2N mooy national yu bëri dañ koy transformer à des voies express parce que Maroc ils l'ont fait mais dañ ciy defaale benn péage bu yema yemambaay pour l'entretien parce que nit ñi bañu ñu fay péage pour di daw ci sécurité ak vitesse bu gën a gaaw parce que c' est deux fois deux voies et y a deux y a d' autres sax yoo xam ne c' est trois fois deux voies te da ngay jóge ville ba ba ngay duggaat beneen ville bi ngay dooraa fayaat péage donc on a ce programme la avec des des routes comme Kaolack Tamba mhm. avec des routes comme Tivaouane ba Saint-Louis avec des routes comme euh, bi dem Ziguinchor entre autres on a ce programme là boo xam ne équipe yi ñu ngi ci liggéey. Mhm. on a un programme pour le développement du réseau autorité dëkk yi muy jaar par exemple da nga leen di bàyyi wala da ngay dëgër pire. day am ay sorties nee naa la Maroc ils ont fait la même chose day am dëkk yoo xam ne day am ay sorties. Mhm. day am ay sorties mooy là su ma li nga bëgg wax du ñu créer de nouvelles routes. parce que la route elle est là déjà mooy bu ñu jëlee par exemple Saint-Louis Dakar la route fi muy jaar jaar na fa. léegi pour yokk ko def ko deux fois deux fois t'as pas besoin de déguerpir des gens. non non voilà doo déguerpir. voilà doo déguerpir et puis boo demee ak grande agglomération boo xam ne dafa war a am par exemple ay emprises yoo xam ne dañ ko war a libérer. soit ñu indemniser wala ñu def voie de contournement. ci biir dëkk yi. oui su ko laajee parce que c'est c'est c'est pas de long tronçon. fu mel ne par exemple. Eh, effectivement contournement moo donc mais aussi. il y a les autoroutes par par parallèlement il y a le programme aussi de développement du réseau autoroutier bi nga xam ne autoroute aussi dañuy continuer. parce que tey huit pôles de développement yi war nañ ko mën a relier avec des deux fois deux voies. parfois même trois fois trois voies certains trucs mais li gën a nekk suñu focus ñun régime bi c'est le maillage ferroviaire. autorail te man loolu laa demoon gën xool Maroc ak ban système lañ teg bu permettre ñi def ko ci lu gaaw. kon euh, El Malick kon yéen nekku leen di réfléchir ci naan fii ak vingt ans mën nañu am ay train. ci lu gaaw ngeen bëgg. noo non xam nga c'est un plan. boo xamante ne nii ñun suñu plan dañ ko liggéey ci vingt cinq ans. oui je mais dañ ko phasé. Mhm. te phasage bi li ko déterminé aussi mooy les voies économique mooy tey ñëpp xam na ne la ligne Dakar Tamba doonte am na mais bi fi am mooy bi ñu rénover mooy raay bu njëkk ba performant wul parce que système métrique la parce que y a métrique écartement métrique mhm. am écartement standard terre bi écartement standard la mooy presque écartement bi ëpp ci àdduna bi léegi moo lay permettre nga mën a am yenn vitesse yi ainsi de suite waaye tamit en terme d'essieu yenn pois yi donc ñun on va quitter le métrique pour aller vers le standard comme les autres pays maanaam yokkuteer bi par exemple non non non je parle de l'écartement des rails euh, dinaa ñëw ci teer bi je parle de l'écartement des rails mooy euh, Dakar Tamba parce que Tamba mooy nëbi mhm. donc dorsal bi ñu am mooy Dakar ba Tamba en standard mais bien sûr day am ay ay embranchement pooru Sendou pooru euh, comment dirais ndaayaan parce que dañu dañu dañuy bëgg di viser dans le long terme mais aussi day am ay embranchement ay Diourbel ay fi muy jaar dañuy mhm. xool d'abord ba mu yegg ba Tamba et de Tamba on fait les connexions C'est-à-dire, si le, si le Mali arrive, on privilégie Kidira. Sinon, on privilégie Moussala parce qu'on vise Miferso, on vise les fers de Falamé, on vise le secteur minier, etc. Et d'autant plus que ñu bëri ci ñoom ils sont même d'accord pour ñëw def ceeg ñun PPP parce que ñoom ñoo gën a yàkkamti bi pour exploiter. Mais aussi de Tamba, on vise des phosphates de Matam. De Tamba, on vise Ziguinchor et le port de Ziguinchor, la connexion. Donc, et les autres lignes aussi. fi mu jaaroon yëpp. Mhm. train bi suñu objectif mooy mu jaaraat fa moo xam gi new la moo xam bi jaaroon Louga la. moo xam ay nit ak ay marchandises. merci les de boo gisee ñu naan la standard c' pour attendre yenn numéro de vitesse yi ñun même bu ñu yeggul 320 160 à l'heure boo ko amee ak train. Mhm. Moustapha nga dugg ci train. toog ci train bi. train bi am mini restaurant ci biir. comme ni ñu toogee nga man am table ci mhm. train bi di liggéey ba baa ngay yegg. loolu moo am euh, réew yi développé noonu la ñuy développé dañoo lever barrière ay man fii laa dëkk daa sori foog ma ñëw loger fii et cetera déedéet mooy da nga mën a xëy Saint-Louis ñëw fii. wàcc ñibbiwaat. Pape mën a def si penco su paree dem bi ñu maintenant loolu programme am na programme boo xam ne aussi il faut voir xam nga les statistiques aujourd'hui dans euh, le Grand Dakar si ce que j'appelle le Grand Dakar c'est c'est Dakar et la région de Thiès maanaam Thiès ak Mbour mhm. axe boobu daanaka benn agglomération la léegi faut l'anticiper il faut une connexion rapide moo tax effectivement l'extension AIBD Mbour et euh, Diamniadio Thiès est d'actualité sama équipe yi ñu ngi ciy liggéey ñu ngi ciy liggéey Euh, dañu jàpp ne terre bi actuellement deful TER train express régional génnagul daanaka région bi metro la nekk di def métro mooy di daw di taxaw arrêt yu bëri di daw mm-hmm. comme li am ci grande ville TER nag moom am na benn euh, euh, du am autant d'arrêt hmm. mais am na vitesse de pointe bu muy am parce que fii train bi mënu sax daw yenn vitesse de pointe. connexion région la matériel roulant bi ñu jënd pour def terre la wax dëgg yàlla pour def express régional waaye métro lañ koy def la qu'est-ce que ça amène usure ces day gën a gaaw donc frais de maintenance yi day gën a bëri hmm. donc les équipes ce qu'ils sont en train de voir c'est est-ce qu'il y a moyen aujourd'hui d'amener du métro e de basculer les terres sur les longues distances avec l'extension bien sûr donc ñu ngi nekk di ko étudier ce serait donc c'est ça bu boobaa di nga mën a indi des métros avec euh, avec euh, euh, au moins benn étage nga xam ne dina am toog suuf ci kaw à partir de ce moment de Dakar à Diamniadio dina mën a ramasser lu bëree bëri et donc sans compter maintenant l'objectif qu'on a ci ci ci Dakar Dem Dikk mhm. ak ni ñu ko bëgg a rénover parce que les pays aussi il faut il faut il faut reconnaître une chose c'est l'État qui a en charge le transport public. Oui. Mm-hmm. donc il faut ñu mettre. à disposition généralement on dit d'ailleurs sax mais justement donc à partir de ce moment am nañu une vision très claire boo xamante ne nii le directeur de Dakar Dem Dikk mu ngi ciy def liggéey bu mucc ay boo xamante ne nii tey suñu paree yaakaar naa ne gaa yi dinañ gis euh, lu am am solo mu amaat leneen lu ñu woowee RTC reconstruction de transports en commun nga xam ne day am ay lignes de quatorze lignes de rabattement parce que dafa am yoo xam ne. TER bi ak BRT bi yëpp desserviru leen ay Kër Massar ay tout ça donc lignes yooyu ñoom ñooy rabattre ci ci ci principaux lignes BRT TER ainsi de suite. parce que dañuy préparer JOJ. d'accord parce